dugal ko fépp waay Josa moo ñëw bonjour ça va bien oui tranquille émission bi commencé na c'est en direct bon aujourd'hui c'est moi qui va faire le le patronyme de la. xaaral ma xaaral ma bàyyi borom présenté borom présentateur mu présenté. waaw léegi man maa la ko may tey ngir yàlla. ngir yàlla. bonsoir euh, madame et monsieur euh, madame sénégalaise sénégalaise. on est vous faire euh, parmi de vous. de vous faire partager l'ambiance angoisse. oui angoisse bu ko xam nga rédaction. sa diggante ak yàlla koo bëgg. non dama lay laaj rek. <laughs> non yow laa bëgg man yow rek laa bëgg man yow laa. mais tey gis nga ma. non da ngaa sensé. sama xarit bi tey da ngaa garaaw. black and white def red ci biir dàll yi ca biir kawas ya suchet ya nga def nga def rouge. Sénégal naa ma la def rouge moo mën a sensé kay. Sénégal na ma da mën a sol. solo kay yàlla solo kay yàlla sama kala sa. déedéet bu ma ko mën <laughs> <laughs> très bien ñu ngi nuyu mbokki téléspectateurs yi ñu baaxoo di ñu topp di ñu bàyyi xel ci 7TV nuyooti nañu leen ci seen émission les ambianceurs ni ñu koy defee di lundi au jeudi bu 16h jotee ñu dikk ak yéen fas yéene leen gunge ci mbaax ni ko Papa Ndiaye waxee daañu dàq lépp loo xamante ne stress la ak angoisse bu ngeen amee ba noppi toog seen i bërëbu liggéeyukaay moo xam ci bureau yi wala biir kër yi euh, la ñu gunge leen féexal seen i xol ngeen sees as lan kii sunu àq dimbali xam moom dañ leen di partager angoisse. Hmm. ma ne ko non dañuy dàq angoisse. mais Mara. angoisse ak stress moom baaxul. Mara affaire bu garaaw laa lay expliquer. mooy. démb dañ ma woo. Hmm. téléphone kenn ku nekk hôpital. Hmm. feebar na un mois. seen waa kër moom nee nañ amatuñu yaakaar ci moom sama je le dis. ndeysaan <laughs> mais nee na. da koy faj. ndeysaan day nekk ci lii hôpital day xàkkataay di lii. toll nii tane na ndax yow. ça c'est à waaw ça kon gën a la yokk. mu yokk salaire mu gën a laakaaj mu gën a neex. mu gën a neex as ah, wax nga lam solo xam nga chaque jour dama koy wax. saa su ne ah. le rire et la musique de l'âme. Mhm. reetaan dafay faj. Mhm. même scientifique yi def nañ ay recherche ba xam ne reetaan dafa baax ci doomu aadama am na jàngoro yoo xam ne ree donc ko mën a faj. dama am benn question. mooy. Papa Ndiaye. Mhm. scientifique laa bëggoon xam muy lan parce que moom des fois day lakk ay français yoo xamante ni. tegu ko fenn. waaw il n'est pas fait là-bas. wuy yaay. scientifique mooy nga am sa ñu defal la téere nga dem ci ude bi mu ëwal la ko ñooñu ñooy scientifique ok léegi Asi ah, nuyoo. laa <laughs> akbar. kontaan nga. waaw yàlla mën na lu de. nuyu Sénégal ko. mooy la. kii waxu la ko. sama copain bi ne Géejawaay. bu Siteu bu Siteu wax dala moo <laughs> ngi noonu Mara à sa benn la ñuy jaare rek nuyu ñi nga xamante ne bokk na spectateur yéen ko lekkaat ngaa euh, euh, ko euh, lekk ka du fuum. day muus yéen ko lekkaat ñëw bëgg ko ji ñaata lekk yéen a day wóor te jàng ko ta in sa keew jooy seytaane te jàng ko ta in sa keew ci reetaanloo tout le temps donc yàlla na yàlla fëgg seen bopp waaye ñu nekk ci prison yàlla yàlla génne leen ba euh, euh, li leen ko dugaloon yàlla bu leen joxati wala seytaane bi leen joxati li nga xamante ne moo di xel boobu ba leen euh, di jàpp Mara foofu laa jaar rek nuyuwaale bu baax a baax ki nga xamante ne rek mooy sama yaay à mu ne ma toppal ndax wax dëgg yàlla li nga nëbboon su ma toll nii moo ñu feeñ kon maa ngi leen bu baax a baax waaye ma ngi leen bu baax a baax yaay déggalu ma de yaay en direct laa ko déggalu lu ma ko wax du ko def may ma loolu Pape Maguette Baba Ndiaye may ma ko yéen a day muur yéen ko lekkaat ñëw day Dakar bëgg ko jiiñ ngaaka léegi katu puub eh, yi ne du ñu ngi muur eh, yoo ani aara dee si takka jabar wala aara def la ñaareer ànd bi yàgg na gis naa ni jaar digil. moom ñooy bañ jàpp waay. très bien en tout cas ils ont merveilleusement campé le décor euh, dañuy daal di dalal suñu gan. Hmm? Pamagué s'il te plaît. ok. ñu dalal suñu gan on a benn invité boo xamante ni moom il fait partie des jeunes yi nga xamante ni ils sont pétris de talent bokk ci ñi nga xamante ni musique sénégalaise am nañu yaakaar ci ñoom bokk ci ñi nga xamante ni mën nañu wax révélation wala relève la ci musique sénégalaise il se nomme Ndoza man nag dinaa wax la tey lan mooy Ndoza est-ce que c'est son vrai nom wala Ndoza surnom la Ndoza mooy lan daal Ndo lan mooy Ndoza d'abord avant ngay nuyoo mooy lan. Ndoza de wax ok mais qu'est-ce que fii signifie Ndoza. Ndoza sama benn grand nag bu dëkkoon sama koñ. Mhm. maa ngi koy ñaanal yàlla xaare waa jën. moo tudd Ndoza mu lañ doon woowee mais Ndoza du naan café. ok léegi ma juddu nekk ci koñ bi gaa yi tuddee ma ko. Mhm. tur boobu nag moom ma topp ba nii. nga jël ko def ko sa nom d'artiste. waaw très bien am na solo en tout cas c'est un plaisir ñu dalal la ci ambianceur ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi lay seetaan. waaw maa ngi nuyu aduna Mara di lu nuyu di nuyu Papa di nuyu sama jigéen bi. Asia di nuyu ñi ma àndal ñëpp mm-hmm. di nuyu nag koñ bi ma bàyyi ko muy méngoo ñooñu aw ma ñu dul ñoom mm-hmm. waaw ñu ngi toog di ma seetaan maa ngi béggee ñëpp su ma limee damay juum mm-hmm. waaw di nuyu nag ñi ma àndal ni am na solo Papa Ndiaye sa rakk la ñu dalal non kii nee naa la waxuma la jantal bi mu jantal sax ci waykat waaye booy yu ko wër ñëpp samay fiis moom moom fi ne ni moom Mara après faaw jël engagement yu rëy ci moom fu muy tëgg ñu dem dar ko. ay engagement yu solo ne suñuy nit jëmmal ko parce que. man damaa bëgg artiste bu boo. waaw artiste da war a jantal boo. am profil waaw di sangu. waaye doo wuy ah sa gémmiñ mbuuraan ah, man sama booy bi xool ko. daaw artiste du sangu américain la bari na de. bon aka am na. Eh, bul tudd tudd <laughs> ah. ma bàlleel bàlleel. ma bàlleel très bien. Doza day sangu day sañse day def ba mu baax et puis bi muy xeeñ tamit itam neex na. Papa Ndiaye wax na dëgg dafa war a am élégance dañu lay bàyyi nga bëggal téléspectateurs yi di topp d' abord nga comme nuyoo nga ba noppi nag nga dalal leen. waaw dégg nga yaa dégg sama claviste bi maa la bëgg daal <laughs> très bien Doza en live ñu eh, man de bëgg naa la géy ma saada ak ma maani penda naar waaw waaw waaw waaw waaw waaw wuy wi ajaa géy laa mbokkum yaayu mami géy mbokkum yaayu awa mbay dogu faaleek maa wajoore waaw eh. yow mi am sa yaay ngalatil sa yaay yaayu Adja Gaye kii man na yaay waaw waaw waaw woo yow mi am sa yaay ngalatil sa yaay ñaanu yaay galala ci doom gay ma saat na penda naar waaw waaw Eh, man de bëgg naa la ñaalo gi naa ubbi ah. waaw ah, ku mën a ubbee ngi nii ni mu ubbee neex na ma xool ko yow xool ko. <laughs> ni mu ubbee neex na ma ni mu ubbee neex na la ni mu ubbee neex na ma waaw. <laughs> Eh, yow kii ni mu ubbee neex na la. en tout cas ah, dañuy wax daal de kii eh, émission bi la ba la war a bokk ci. ah si ni mu ubbee neex <laughs> waaw. non ni mu ubbee sax neex na franchement. ah waa ci mboq la lay la. yow ci ah, ah, ah. <laughs> mu sibel too sibel fan mooy too sibel ni mu ubbee loo ci wax kii di sax mbir barke Serigne Touba Mbacke en tout cas eh, bi day soog a tàmbali dina wéy neex mu def introduction bu ama am solo Ndoza lañu ñu dalal mu nekk koo xamante ni wax naa ko sànq eh, baat bi neex la waaye am na talent te itam incha allah dinañ découvrir tey lu bare bare bari ci moom Papa Ndiaye li muy jaabante ci plateau bi mel ne GP man jaaxal na ma Papa Ndiaye li lan la. ba ba sax li mais man lii ma sol nii yëpp lan moo ma ko teg ba pare. Ah, c'est. ah xanaa ma ne tàngoor mën na lu ne. non ba pare yenu a waaw <laughs> sa yëkkoo sa. Souleymane Faye. sa gilet gilet bal bii nga yëkkoo Souleymane Faye ñëwoon na ba jël affaire ba yenu ko ne a àdduna a sa morom ba lu ma <laughs> tey tey laa ni way woowu dëgg la émission bi laa jëlee dënn dañ ne ma Ndoza mooy ñëw. Euh, ma foog ni mooy loolu. kii du sax dit barke Serigne Touba Mbacké. ah du dit. ah non non non bàyyi ma bàyyi ma ko nii jaabante indi indi. très bien man il faut may jaabante. léegi léegi on va enchaîner avec Asi. ñu xool Asi tey ci lan la fël. en attendant ñu dellu si waat ci Ndoza ngir yëgale ak moom waxtaan wi itam waaye ak woy yi Asi. mais yow démb da ngaa dawoon. tu as fait l'école buissonnière. ca ah may mën a dàq na ma ba pare. <laughs> kii bi may dàqalu ji kan moo la jox autorisation ñëw. man ci sama kanam sama kanam. waaw jërëjëf. léegi ma lay wax ko demal taari reer. bu la fi kenn téye la taareel. loolu nga ko. Oh, on enchaîne ak Asi. Asia. Euh, lan moo ñëw tey waa Papa Ndiaye dama nga taxaw fële. ok chef. waaw bu ma yokk tàngoor. non yaay géwél bu répété xare lu mu. lu mu ko. <laughs> loolu ñuy def nii rek. Uh-huh. Euh, féexal xol yi wax dëgg yàlla ndax euh, loolu lañ fi am. Uh-huh. Euh, ambiance moom loolu lañ fiy def indi li nga xamante ne moo di actualité de lundi uh-huh. yenn jours yi indi leneen waaye ba jeudi bi dañuy indi li nga xamante ne moo di humour. retaandoo yi nga xamante ne rek ñun bokk téléspectateur yi tey indi nag Diop Fall ku neex. Diop Fall. ni nga ko neex. non ku neex a neex mais xoolal plein nag artiste ndaanaan kulli fadil. Ah, un artiste hors pair. kenn du moom ba pare xool bi rafet nag. balaa nga koy xam nga fekk ko Paris. c'est un artiste hors pair boo ko fekkee Paris xam ne tim man daal bëgguma sax ngay ñëw ci réew mi fee nga ne foofoo baax. Ah, kon jël na ko dal. Paa Maguette. Paa Maguette <laughs> moom la bëgg de moom la bëgg fan yi sinon bu fekkee élément bi pareegul ñu ñu ñu des ci Ndoza ba keroog mu élément bi di di di yemb. kon ba tey noo ko bëggee rek. ñu dem ci Ndoza Ndoza euh, ci yaay nga tàmbalee. tàmbalee lu tax. waaw Papa Ndiaye man Mara bëgg sama yaay. ah ndeysaan. dama bëgg sama yaay. Mhm. ma teel a ñàkk bàyyi nag. Mhm. mu sama yaay ma koy yàlla bàyyi ko fi. yàlla fi yàgg te wér ak bépp yaay damaa toog rek. Mhm. man sama benn xarit bi ñuy wax Bas ma toog rek sama bi ñëw sama bopp rek ma ne ko taal clavier bi ñu waxtaanee ko. mbokkum yaay Ali Mori Mbaye. Bas mi clavier. yee mooy doomu nday Ali miy toog. mu taal clavier bi rek. ma ne nañ waxtaanee loolu. Mm-hmm. boobu sama am na sama benn xarit bu toog nongo nongo ne ma wéyal sa yaay ci laa inspiré wu lii ne sa yaay tiil sa yaay ndax ñaanu yaay gaalal la ci doom. Mm-hmm. la woy bi ñëwee ci moom. noonu la woy bi ñëwee waaw ma woy ko Adja Guèye nag Guèye ma saada pendanaar jigéen diwum. Mm-hmm. Papa Ndiaye. waaw man na ma woyal moom moo jaay laa ko bëggoon laaj. waaw loolu ñëpp a ma laaj. dañoo am trait quoi moom moo jaay kan jàlloo. dèjà waaw kenn jàllo waaw man man kenn jàllo laa. amee nag man tukulóor laa ci ndey ak ci baay. ah macha allah mais ñooñu ñëpp yaa leen gën a jantal man man benn benn star américain nga may jox barke yàlla. la waa léegi kan la léegi ban ban star américain la waa léegi waxal. sama copain la. Ndoza Ndoza bu Amérique xam nga ko. xam naa ko. Ndoza nga may jox. ok léegi nañu enchaîner kon ci beneen morceau Ndoza. doog a ah. ñëwaat ñu soog a ñëwaat après bu ñu ñëwee ñu soog dem ci assi ayca. waaw Maguette yaa ngi def lu la neex nag tey bul saboté Ndoza moo ñëw ah Adja Pape son retour clavier. mais son bi nag Pape laa ko may. borom 7TV. Pape micro micro waaw Pape laa ko may Pape sama xarit. cérémonie Gomis moom laa ko man de gis naa ko gisati ko gis naa lele man de xool naa ko xoolati ko xool naa lele ali sunu réew mi soo amul bokkuloo bilaay li ma wax ko man dundu naa ko wax le Ndoza ñëw na bébé Ndoza ñëw na Lord Jesus. Sada Penda ak Mamani Penda ñetti doomu Penda yaa ngi noonu yow Adja Gueye Gueye ma Sada Penda Naar eh, ak Mamani Penda sama yaay jaa ngi noonu Siri Ayu bi nga jàppee ba tey bàyyi woo Adja Gueye ndeysaane eh. ah Adja yow Gueye ma Sada yow Adja Gueye wóolu naa la laal yow Adja Gueye fonk naa la laal Gueye Massada wóolu naa la laal man de gis ko gisati ko gis naa la la man de xool ko xoolati ko xool naa la la yow Ali sunu réew mi soo amul bokkuloo bilaay lii ma wax ko man dund naa ko wax ñëw na bébé Ndoza ñëw na lu bees a bees lu bees a bees lu bees a bees Papa Ndiaye riiti ko Ndiaye riiteeti ko riitiiti ko ba mu neex Mara lu bees a bees lu bees a bees lu bees a bees Njaay riiti ko riiteeti ba mu neex woo woo woo woo ilaay mbay yow maara maara ra ra ra ra borom pikin laay bëgg wint maara delusil delusil comment tu vas nangul ñu li ñu moom te yàlla tax maara ah maaraay maara mara xanaa xamuloo ne waaw waaw nit dina yutu dara mu dëgër loolee boobu daa fekk yaayam da koo ñaanalul yow papa Njaay nit dina yóotu dara mu yomb lool boobu daa fekk yaayam ñaanal te sa dala ñaanal papa Njaay mère Ndiaye mooy sa yaay papa Njaay jëntal maaraaw wax leen maaraaye maaraayi maaraa jëntal maaraa yow asiye waaw wax leen asiye yeeye siri moo doy moo doy asema ah, waaw waaw waaw xanaa xamuloo ni Papa dama war way damay tooro de sama ngaari jama yib ma yow ma anda ko ngonda sada mulu mulu jambar sada ñaago ñaago doko Allah yur mu yaafu si xumar futi yu daal Papa waaye dema ngoone mi ci njiloor ji guddi ma benn yoon dema ngoone mi ci njiloor ñoxor mi ci mbeewaan mooy seen maam kumba aram mooy sa yaay dema ngoone mbokkum yaayu umar ngoom mbokkum yaayu pap ngoom siri faatoy moom mooy siri faatu nananananananu yéyéy yee ndeysaan de comme ñëpp may nañ la baal man ma may la mouchoir <laughs> maa la tere la loolu tuwaar kal la jaay jaay ni ma tere doy na war de waaw way ci ay vent rek ak napp yombul déedéet jàppale rek xam nga xam nga fii mën rek doyul. ndey man damay tukkulóor ci ndey di tukkulóor ci baay. man su ma demee xew sax woy ba pare ne tukkulóor laa sax dañ ma naan li ngay wax amul. Mm. ndax damay woy fi géwél yi di way falaay laay way. te damaa nekk koñ boo xamante ni dañ ma bëgg. njaay barki Serigne Saliou. artiste bu fi mënti ñëw. laa la wax ñoom gisuñu kenn ku dul Ndoza. woy nag daa ñëw ci man nii rek jànguma ko donduma ko. kenn jàngalu ma ko damaa toog rek mu ñëw ci man waaw yàlla nag mooy dogal mooy xool li ñuy def ci doomu aadama mu def yaa ngi dem ci label yi ban ban label nga nekk non nekkuma benn label nag lan moo tax lan ngay xaar mais gars yi laay xaar ñu ñëw rek est-ce que yow doo dem tamit ah bu ñëwee mu baax de parce que label dina dimbali sa morom yu ah. man moom bu ma fa nekkee sax dina ma dimbali ndax fii ku mun amul ku ñu dimbali rek moo am mm-hmm. mm-hmm. bëgg naa ko nag trop trop yaa ngi def yaa waaw staff fi de gars yi ñu ngi ci kawam. ñu ngi waxtaan ak gars yi. Mhm. waaw. lan nga jot a defagum ci sa plan de carrière single clip wala. Euh, waaw def naa ñaari single. clip benn bi mais benn bi single rek la. mais est-ce que promotion bi mu war a am mi ngi koy am. mais clip bi nag. Mhm. bi ma njëkk def am na promotion mais deuxième son bi moo amul promotion promotion bu ci war. ok ok en tout cas ambianceur émission la boo xamante ne li muy feeñal ci ay talent bari na. Mhm. waaye Papa Ndiaye day génn ay secret Mm. émission la boo xam ne day génn ay secret boo mënta way rek boo toogee tuuti dañuy xam ne mënoo way boo defee benn moo sa ñaar rek sa ñàkk mën a way feeñ mais au fil du temps ñuy dem may gis ne mi ngi gën a bokk biir émission bi mi ngi gën a tàng voix baa ngi gën a jóg et mu bari nag ay ay registres yu muy woyee lu lu jafe ci woykat yoo xam nga ne man yor naa samay sew yoo xam ne boo fi ñëwee sa premier morceau bon deuxième bi yoo xam nga ne man amul lu ma ci nëbb lu ma ci seet. da ngay ruwaay ruwaay sew kii na waa ko ñoom jóg. Mhm. na ay mbokkam jóg ñu jàppale ko. waay Mara. Mhm. yow kese nga réussir ci sa famille. Mhm. du réussir. déedéet ndax bis bu jafe-jafe ñëwee. ñëppay ànd am problème. dëgg la réussir mooy famille bi yëpp. ku ne jàpp ci dara ba ku jaaxle ñëpp ñëw taxaw la. kii taxawul leen ko nee na leen moom tukkuloo ne tukkuloo la ci bàyyi mais wayi daa xëy ñëw ci moom. te nag boo yaa ngi góorgóorlu de. boo yaa ngi góorgóorlu mais ñi ci war a jàpp ñoom monsieur le maire da leen député yi nekk sa kii bonne volonté yi lu ñuy xaar ci yow. très bien am na solo le temps ñu bàyyi ko mu souffler on ouais. enchaîne avec Asi. les éléments. Euh, les éléments bu fekkee yemb na euh, régie. ah euh, annoncé woon ko ba pare nañu dem ñu jëli. am nga am nga am nga kaapay. Diop Fall waxi dof ngay wax kan mooy nekk Sénégal te amul kaapay. léegi nii nii. ñaata la woon. quatre vingt mille waaw waaw damay laaj rek damay la Ndéla yow ndax xale nga de ah waaw yow yow doo négocier dara. magum jëm nga nekk ci mbedd mi da nga négocier rek. Fall wax ji laa mënul. Badara Badara. non oh, dina ko dee. voilà léegi. oh, oh. da xoola damaa plafonné. waa Diop Fall la mooy da ngaa plafonné. ma xanaa Samba wala Kole. lu lay plafonné. plafonné da ngaa mën a envoyé recevoir nga mënul. lu ko jàppee. Ndéla yaay naan di de. <laughs> Eh, man Diop bàyyi ma man. Ndéla naka neexal neexal de léegi xam nga nooy def. ana sa téléphone génne sa téléphone. Diop Fall sama téléphone andaale moo ko. Ndéla kon yow indi wa sa téléphone. sama téléphone ca kër ga may chargé. waaw waaw Ndéla bu ma la kaapee léegi noo koy xame su may àgg di ko. ah voilà ah, ah ma Samba dama ko bëgg moo kolle fu ma toll dañ may dugalal. xoolal sa téléphone wala boo demee ba sa kër nga xool sa téléphone. may faal. Ah, ah. wóor na nga ko. Ah, yow itam. su ma àggee dinaa ko gis. romb gis. mbaa xam nga su ma ko fa fekkul tey doo nelaw. woo nelaw na. war na nga mel ni mbër ak day. yow kii yow yow kii kii <laughs> yow de yow de boo gisee kaapay sa baay la kaapay sa baay la kaapay wala sa lay da ngaa xamante noonu nga mel ni ab xaj. naan sama téléphone nga kégg. ndéem eh, eh, eh, bàyyil yow. na dindi ba pare ba pare. yow la mën a ñaan bàyyil. bàyyil. kon man mun nga mënoo maa waaw kay. ah jëndee dina. lan la ñaan ana fi nga jàppoon jàppal jàppal fi fi nga jàpp ko. jàppal jàppal jàppal yow. la jàppal fi nga jàpp. <laughs> na dëgg rayante leen. kii mën a. àtte yéen ñaar su defat nii laa leen di def. <laughs> jàppal fi nga jàppoon. jàpp ma jàll loxo may leen ma jàll may ma kooku bàyyi mënu ko may ma jàll mu jàllee leen jàppandi waat leen. mu ne rayante leen léegi yooyu laa leen def yéen ñaar. ngeen ñaar ñii mais man xamal ah ah. kii ñuy plateau léegi nekkoo leen woon. kii dama xam nga ñëw na waaw waaw man xam nga lu waree kim naan sa baay sa baay sa ndey dafa neex de Diop Fall rek dafa neex rek situation loolu nekk lu am solo lekk euh, yoo xamante ni aasi moo ñu koy indi léeg-léeg ngir ñu mën a détendre atmosphère bi. ñu tëdd seeni i kër stressé wala yooyu aasi gunge leen am na solo. waaw yii la def Mara. Euh, des mu jar nag ñu dugg ci euh, gaay yi. Euh, waxtaan ak ñoom tàllal leen suñuy micro laaj leen lan lañ gën a métti comme bu ñu indi woon euh, ak mhm. yeneen yoo xamante ne mu ngi ci biir mhm. affaire yi commencement bi la nii rek mais après ci biir nañ indi yeneen yu ah, na ma de saf na ah, ma neex yenn saa yi mu mhm. ma làmmiñ na ma bët bu aay yàlla ma seytaane sama jigéen bii am na solo yaa ngi koy yëngal sànq biir woy wi Ndoza da ngaa woy ba dugg ci dogoog faali maa wa joor kumba samba yaay jaloor ma bëgg nga teg ci dogo mi ci bétuwaar mi du mi seeseen dogo mi ci waalo loolu boo ko woyee su ma xel day dem ci suma mag suma xarit kati mbay euh, jigéenu fagaay mbay dogo nga xam ne suma xarit la borom jam ñaajo tuwaar kal la kati faaw nga xam ko kookoy giwil gu mën géer taaw bi taaweekuwul géwél buy teral ay nawleem kati mbay temps moom sa loxoom ci soos yée temps yi sama lo temps yi katoo ma katee ma sponsorisé borom kaw lak ndàngaan mooy jigéen Moodu Xalaas Moodu Xalaas laa la na ko ñun ah. ko wax dana ma boole naa na Mara. man lenn moom ma jaaxal ci yéen ñaan ñi. ah fu mu toll nii seen gem dugaloon na ci. déedéet gem bi xajoo ci. ah ok li def xajoo gem bi mooy maa ngi moom. lii boole Ipo Ngari ak beneen paa bi nu mu tudd. paa fa jaay yaa jaar digg Dakaaru. <laughs> xam nga Ipo Ngari ak ñoxo baay heure bu ñu jotee Ipo Ngari bu ñu ko joxee xaalis ñoxo daan ko Ipo. joxati nañu la defati nga ko sa poos lii moo ñuy boole moom maa moom yooyu ñuy boole. fu mu leen di xaar soriwul. Modou Xaraas li mu ñu boole maa ngi yow lekk naa ko ndax lu ñu ma boole yow nga lekk ko. barke rasulullah yaa am ful la. Euh, nuyu naa suma jigéen suma mag kati mbay bu baax a baax baax di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm mbokkum yaayum pagaay mbay dogo yàlla waaye nag suñu waajaa ngi seetaan ca diwaanu maris hmm. xam nga ko waaw waaw waaw Senghor Sukandé la barke yonent bi taalibe maam Baye barke rasulaay alaaji Demba Senghor mu alaaji Demba Senghor mu baax mi yow bu yaa saabu yu baax yi hmm. yaa yor njambaan yu baax yi neexal biir kër yi dëgg la man dafa di falaay a di naan nag mu naan ma pap maa ko bàyyi ma leen nal pap bi yow célibataire bàyyi looy naan ci loolu célibataire nga célibataire la waaw dëgg la kay <laughs> waaw def ci code maa ko ñaan <laughs> ñu dem ci beneen morceau Ndoza tey damaa bëgg nga woyal euh, ñi lay seetaan ba ñu xam ne xale bi ñu dalal dafa mën a woy la yaa ngi ci nañu demaat ci beneen morceau waa li may woyaat nag maa ngi koy may taalibi Serigne Saliou yi mhm. di ko may buubaa Diawara mhm. doomu Ayri Saw Diawara moom li ma dugg rek da ciy dugg ki rek bi ma demee soirée rafet Sall Ndongolo ku ne xam ne ne Sall Ndongolo dafa rëy mhm. ma jël ko def ko gise fermé toj nga foofu. Zeyna fak cinq fois. yow li la tax xeexagul la yow dina la. léegi jàpp ci jëndal ma ay yu bari barki Serigne Saliou. aar bi loolu la ci def. di ko may maa ngi leen a may lii. dina ñëw booy ñu dem ci beneen morceau. Serigne Saliou Mbacké nee waaw waaw. murit yi nangu leen dagal yaa ngi ni sëriñ bi cu di jëm seex saaliw munoo bëgg say doom ba raw ki la jox doom man de su may way sëriñ saaliw ba mu yàgg lool laay lay la laa eey mbaay papa sama xol bi day neex loole waaw ndax taalibe sëriñ Saaliw yaa ngi toog waaw waaw waaw taalibe sëriñ Saaliw yaa ngi toog di ma seetaan Papa Ndiaye yeey kooku soxna Faat Jaxate yaay joo Xaadim Rasuul la ne woowee baayam bi mu toogee li mu njëkk a wax mooy bu ngeen ma joxee ndaw ñi ma def ci ñoom la sama baay daan def ca mag ñi xaddi fii waaye bu ma woy sëriñ Saaliw ba mu yàgg loolu xel mi di ci sëriñ Fàllu Alaaji Fàllu mooy xalifa bi laay buñ ko xamuloon xamu ñun fu nu ñaari sëriñ Fàllu doy na muslaay Fàllu bu su mi ci gàdd gi càmmi nag may ak sëriñ Fàllu ñaasu ganam loko salaam salaam du deñ waaw waaw waaw baka bëri sul sëriñ Valoris mooy baayu Cheikh Abdul Karim mooy baayu sëriñ Afio yaakaaru bu ba ay daan yaay lu yàgg dëgg alifun wasilan ma waytu sukran maliki min jaam min jaam min jaam jaam jaam jaam jaam jaam jaam waay wow wow wow wow wow wow wow wow sambit naa Siri Fatou la e yow yaay Siri Fatou waaw kontaan naa waaw e yaay Siri Fatou Khadafi lu yàgg dëgg la la mu tontu biro ba janaar mu ko yóbbu maa yomba gaa yi gàntu la nu bàyyi fii yóbbu Ahmadou Borom Jaani sëñ Saliou yow maam yow la na day laal laaj nay dada waaw kooku soxna Fatou Diakhaté mooy yaay ja Papa Dia njëkk a wax mooy bu ngeen ma joxe ndaw ñi waaw waaw waaw ma def si ñoom loo sama baay doon doon sama mag di boo dox sëriñ Bamba ganaan li ko toj ujuuri wal ma saaliw bi tiw wa gis ni wa indi sëriñ saaliw xanaa xamuloo ni mbàkki dana jikki jikki di tuuri xewal maara waaw waaw ñu naan ko mbàkke lan la mu naan ma la ñuy durti defuñu dara lu lay aw ci sama yaram bi waaye bu ma wuy sëriñ saaliw ci Serigne Alaaji Fallou mooy xalifa bi laay buñ ko xamuloon xamuñun fu nu jëm juróom ñaari Serigne Fallou doy na muslaay Serigne Fallou yi sama défense waaw waaw waaw ku ko yaakaar doo tiit Fallou Bousso bara mi ci kàdd gi camin nag mbay ak mbeene mooy baayu Cheikh Abdoul Karim mooy baayu Serigne Afio bëgg bërisul alaaji faal looris wax leen daal ma bëri la daay yóbbu baa yàgg bëgg faal xam naa ne salle bi neex na waa VIP fan si club Ndoza bi ana ngeen yëngal leen ah. mbete bii Ndoza daay nay supporter mbete bii mu dugg booy bee raw si na ma ne ko mbete bii mu booy bi buy ñëw émission sax tarki ndaay dañuy jóg ànd ak moom di booy eh. eh, eh, bi booy bi ah. booy baa ni reew waa Eh, non si eh, problème yi bari na non si ne maa ngi Serigne Touba Mbacké si ne ah? day neexal làmb. <laughs> day neexal làmb day neexal làmb balaa yeewoo tey. da <laughs> day jaar ay combat de. non day jaar ay combat allah am na solo Ndoza. Euh, gis naa ne li ñuy topp sa bari nañu macha allah. moo tax ma leen doon ruubee pour boole leen ci xam nga ambianceur moom comme on le tout temps on pas la tête fii moom. non fii la lépp di xewee. free free free life bi dama ko daan toog di ko seetaan. free sama xol bi di tooy. ndeysaan nga tey ma ñëw. ndeysaan fii mooy Bercy. Mm-hmm. non fii lépp fii mooy Bercy. Mm-hmm. gis nga li ngay wax ay Bercy lii ak Bercy. Bercy ngi nii Youssou Ngom a ngi nii xolam tooy na. maanaam. Mm-hmm. booy bi damaa bëgg sénégalais yi jàppale ko. ndax li mu way léegi. gis naa mu mu mu dugg Ndoza. da nga mel ni ku dugg ci registre Sidi Diop. Eh, dugg waaw gis naa la. mais lan la yaa ngi mais léeg-léeg day xaar mbay déggoo léeg-léeg ma dégg mu eh. jékki-jékki dugg ci ay octave xaar. non non non mais El Hadj Keita da koy mere de. El Hadj da ko mën xam ah, ah, ah, benn sekk mooy ba ci yàgg di xaar mbay. waaw na yàlla guddal fanam kii nañu ko jàppale mais Ndoos. Hmm. Ndoos yaa yaa Sidi lan la ay gaañ ngeen wala xamante ngeen parce que damay gis morso bi jàll léegi dafa mel ni mooy loolu quoi da ko bokk. waaw Sidi moom sama waayal danoo yàgg hmm. boobu kenn xam boobu wayuma ah bon moom da daan ma taxaw ci ginnaaw di seetaan. ànd ak sama gars yi boobu dugguma sax ci aar. Ah. allah dama daan taxaw ne gars yi fi nekk naa fa nekk. ndeysaan boobu dugguma si waay mais xam naa ne am na lu ne ci man. maa ngi mm-hmm. fooyantu woy. bu mm-hmm. may sangu di di waay bu ma duggee sama néeg di waay. non man kay wax naa ni sànq da ngay sangu ñoom ñoo <laughs> loo gëm sama soirée bi nag mu jàppale ma ci. Mhm. jëndal ma ay billets yu bëri. Sidi ah. waaw yee ndax man ak moom dañoo yàgg. Sidi Diop li ñii xam nañ ko. dëgg la loolu mooy yoon. dañoo yàgg Papa Ndiaye man ak moom mu daan ñëw sama suñu kër di ma seet si du benn du ñaar. Mhm. billaay. ngeen def seen yëfu booy. yee te ànd di dugg ci ay. ndax man fi ma dëkkee ak moom fi mu dëkk sorante mhm. parce que la jógee foofu dem kër mère Diena Fall mais ku baax la nag. ku baax la nekk sama waay nekk sama. yéen yéen a ngi jóg barki na def na ko dóom. wàcce ko mais yow yoon di nga ñëw damay see mariage mu ñëw. bu ñëw dama ko jox sama micro dem toog ci ginnaaw bu jaree ma aw ma aw. Hmm. am na solo en tout cas registre yi ngay wooyee bari na ndaanaan yi may dégg ci biir woy yi bari na. Hmm. mais tey boo doon wax sa idole wala koo xamante ne bokk na ci li la inspiré motivé la à ce que nga bëgg a nekk woykat. waaw mais bari na Alioune Mbaye Nder. dama ko lu bari. Hmm. dama koy déglu quoi waa moom boo koy déglu moom di nga xam foo woyee ak foo dul woyee mhm. ndax moom daanaan la ak Papa Diouf mhm. yee Papa ku ñuy wax Marle bu géejee waaye Marle Mbay ah, Marle Mbay Marle Marle Mbay grand Marle dafa maa bëgg grand a mhm. mu ngi mel ni maa fa njëkk a waay Mara. barki Serigne mais xale bu ñàkk jàng nga yaa ngi wax ni mais ndeer ñoo nekkoon léegi. ñu ngi seetaan. booy yaa ngi wax ku mën a way ak Papa Diouf parce que mag ñooñu dañu dañu dañu mbappat maanaam Lamine Lamine fay Lamine Lamine soo jamono ku oh, fa jaar ci école boobu ba ci Fallou Dieng mm. dafa am luy nekk ci yow ba ci salaam Diallo da ngay xam temps fort xam fi ngay duggee xam fi ngay génne ndax Salam damaa dem répétition am yóbbu ma fa pour ma aaw ko waaw micro bi bi ma ñëwee waaw micro bi bi ma ñëwee mhm. daa mel ni ci li ma nekkoon bokkul ak ci li ma nekk nii lay lay laa bas mbaay fa yóbboon nga nekk ci à l'aise salaam naan ma wayal fii. waaw mais xale yi toj game bi yëpp. defal lii yëngal musique yëpp ci salaam la ñu génne. yee kii. ay Moussa Diouf son yu bëri mu moo ko defar alimi. xale yu ci bëri ci salaam lañu def lañu kii paa bi salaam lañu newoon di aw. salaam yee jaar naa waaw mm. wuyul Mara man dama bëggoon rek wax looy xaar ci ci pour jëm dëggal sa bopp quoi. Mm. clip yi studio yi soirée yi. mais Ndiaye jàppale rek Ndiaye affaire dafa métti ñu dañuy taaba taaba ci mariage yi. Mhm. te lu ñu am ci mariage yi. def ko ci. waaw def ko ci affaire yi. dinañu te duñ bàyyi suñu bopp. dañuy mhm. jënd yére. mënu ñëw dem benn mariage sol fa lu ñu fa solo. dafa métti. Mhm. waaw faaw ñu am ñu jàppale. dina waxee pour dem ci ci benn resto wala benn boîte. même bu dul soirée di fa am ay after work yoo xam ne di nga ko fay def parce que je vois musique bi ngay def large na. yow même bu dul mbalax bu dul woon ay sabar ak dara benn clavier ak benn waaw ah, gis naa loolu quoi pourquoi ah. pas dem benn resto biir Almadies wala bi ci Petite Côte bi wala ci hôtel yi nekk fa di parce que am na sa ay morom yu bari tey yoo xamante ni par exemple man chaque jour dama koy citer l'exemple de Diaw Diop mm-hmm. avant nit ñi di ko xam fekk ne mu gagné benn public bi mm-hmm. parce que mi ngi woon ci Petite Côte bi nekk ci hôtel yi ba léegi ci biir Almadies bi boo duggee am na hôtel yoo xam ne tous les samedis wala chaque week ah, naa ko nag mm-hmm. di ci Ah. képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi yor boîte rek. Mhm. bëgg ku la jël after work. non dugal nga dem non damay dem moom kañ mu jógee fii staff bi ngeen ñëpp. Ah. léegi joxel numéro bi numéro ménagère bi nga xam ne ku la soxla mariage. wala mhm. ku la bëgg a jël soirée waaw joxel numéro bi. sa numéro wala numéro ménagère bi rek. waaw ménagère. wala sama numéro. <laughs> bu leen fayee 400 may leen 200 la. waaw da ngay def 283 77. waaw 283 23 12. boo jotul boobu nga def 389 76 00. macha allah 78 am na solo. bis topp manager. 357. 93 77. 97 97. ok répété ko. 357 97 97. waxal 350. 7 97 97. Ndoza Mara wax na lu am solo. mais yéen mais yéen da ngeen am sikki yéen nouveau nouveau kii yi. Hmm. da ngeen di jàpp ni soirée. soirée du fees. Hmm. soirée yow yaay compétir. Ah, bàyyi leen ay fees naag fees bul ne foofu. li la Mara di wax yow dama la toog di jouer. waaw gis nga saa yi mu ñàkk fees yàlla indi nitam. nga dem ba G bay ñibbi mu dajeeg moom mu jox la loo xam ne bu soirée bu feesoon sax doo ko am. waay dal na ma dal na keneen. nekkal ci liggéey bi rek li la Mara di wax ni bu lijjanti kii feesal na feesal ma ndax nit nekk ak destin. dëgg rek nga wax xoolal rek concentré wut sa liggéey dem jël way say way bu yàggee rek macha allah am na solo c'est un message boo xamante ne képp kuy artiste wala jeune talent wala kuy soog a débuter carrière am tey seetaan télé bi mën na ci euh, mën na ko jël comme exemple mën na ko jël comme euh, message boo xam ne bu ko jëfandikoo dina ko jariñ lu bari mm-hmm. artiste li ñuy wax naan euh, làmb du biir day xëy wasin loolu mooy aar musique du du xëy rek fay mm. danga ciy nekk di tarbiyu di soox muy metti ba xëy rek suñu borom indi yëf yi ça a été un plaisir Ndoza nga accompagné woon ñu ci ngoon gi ñu ngi kontaan téléspectateurs yi itam am naa yaakaar ne ils ont eu autant de plaisir que ñun ni ñu ko amee woon ngir ànd ak ñoom aasi on se donne rendez-vous lundi incha allah d'ici là je te souhaite un bon week xam naa ne yow tey ngay jël sa week-end ah. waaw tey non demain. ambiance yàq na la nag. demain demain damay liggéey si <laughs> demain. donc dinaa dinaa nekk matinal. Mm. Euh, dinaa nekk matinal def récap euh, li nga xamante ni moo gën a fës ci réseaux sociaux yi. Mm. comme ni ñu koy ni ñu ko daan defee ah du lundi au vendredi sur les buzz du net ak people lépp loo xamante ni rek fës na ci réseau sociaux yi dinaa ko indi Mara léegi Miss Buzz lañ may woowee ndax gars yi mel. télé télé mais Miss Nettali lañ la war a <laughs> baal naa leen di wa leen tontu kon Mara euh, ci kaw loolu rek damay remercier ki nga xamante ne moo di Marema euh, moo ngi ba euh, rue bu nekk foofu ca bopp ah lépp lay jaay tissu bu rafet robe ma sol nii tey tissu bi fa ko jëlee day jaay lépp loo xamante ne rek xeetu tissu la donc moo ngi noonu nañ ko dem xooli mu ngi foofu ca bopp rue 5 ah, Mara hmm. donc ñu joxante rendez-vous rek waa ambiance voilà ba jaay na loolu rafet waaye ku rafet sol ko ah. <laughs> <laughs> man xanaa di gërëm sama fils rek Ndoza. di ko wax ni yow laay topp léegi maa ngi sa ginnaaw. gars yi moom balaa laa kenn jot jaar sama kaw. ay mouvement yu solo leen laa jël ci yow. foo ma wax ko gars yi ñu xam ne pare naa pour gunge la. jëlati ngay engagement daal. waaw maa ngi sa ginnaaw. waaye uh-huh. di gërëm sama waaja rek dem a sangoon mu baax mi. waaye nag mënta ñàkk Aliou Mbaye ndeer ci yëf de waaw su lënd naa la tagal ay yëf kontaan ci yow alaaji Mara bu ñëwee mu a neex Asia bu ñëwee mu neex Ndoz uh-huh. tey defal nga ma lu ma neex man na bëgg xale bu nekkee ci yoon di teel a ñëw uh-huh. bu la joxee rendez-vous ñëwal uh-huh. artiste day teel a jóg li nga wax rek mën rek doyul boo mënee da ngaa war a yaru boo mënee da ngaa war a teel a boo mënee da ngaa war a teey yooyu day accompagner nit pour mu yegg am na solo jërëjëf Papa Ndiaye wax ju jar a bàyyi xel sa un maestro koo xam ne bi muy am at yi nga am ci la toj àddina wala boog sax nga magoon ko fuuf à l'âge de 18 ans mu yëg sur la grande scène de Bercy la scène mythique toj ko kon bu la joxee conseil ci musique boo ko suivre li mu lay jëriñ dana bari mhm. téléspectateurs yi ñu doon seetaan yëpp ñu ngi leen di bëgg euh, régie ñu ngi euh, euh, bi bëgg nañu kër gi yëpp yëpp yëpp rendez-vous insha allah rabbi lundi ñu dellu siwaat ci beneen semaine ambianceur Ndoza une minute nga remercier ñi nga bëgg a remercier deux minutes nga ñamal ñu ci leneen maa ngi gërëm sama waa koñ waa filmique jàppo daaru mm. golfe sud Papa Ndiaye fu ma tëggee dañuy ñëw. muy mariage ak di lépp fu ma tëggee dañuy ñëw aw ma seen fay. Hmm. surtout man sama waa koñ fi ma dëkk muy méngoo aw ma seen fay. Buuba Jaawara aw ma fayam As borom biis aw ma fayam tamit moom mu may jàppale mbokkum yaay Mama Ndiaye. aw ma fayam ñooñu ñëpp dañ may dooleel. Zé borom woo ma sob staff bébé Ndoza bi yëpp. nongo xaadim Sidi Ngalañ xasala vieux. Hmm. tukku séeri kinne bàyyiwuma ci kenn. jigéen ñi tamit aw ma seen fay jël naa lépp. teg ko ci loxo xaar. ah kon sa groupe am na ay jigéen. waaw <laughs> bari na. di gërëm nag eh, maanaam di gërëm nag Youssou Ngom mii nga xam ne mm-hmm. Adama Ngom ay baayam ah, waaw mooy tëggal Balla Gaye di gërëm mbay mii nga xam ne sama xarit la mm-hmm. Ali Mari Mbaa ngi nii mm-hmm. waaw dëgg neexul aw ma seen fay waaw ñu dem rek ñu tëjee loolu ñu tëj ko en beauté jox leen rendez-vous lundi insha allah ayca ñu dem loolu saa waay wayal eh, lu tax ku ma nopp man ba la xol bi nga jël sa xol dem bàyyi ma xale bi ma bëggoon te daan ma jëra xeexa xuloo waaw Papa Njaay xëy na bàyyi ma ndeysaan waaw waaw yaay dàkk na ma ma Papa Njaay jamono daa metti ku yuuxu danga ragal waaye àdduna fasu naa rugur la daal ku fuy sa ñu raw la bi nga wati sikim ji nga sa maata war a baay jaaru nga gisee ci nga weesu mbëtu war a xalaat dimbali yaay ca waayo jamono metti na yi metti na ma daaw mbay dër ci bi wow wow wow wow waaw e bayi Mustafa murtajida wal murtashina nim la bëgge woon sama baay ba baay daale ma yabal ma fàtte di ñaar waaw waaw waaye dégg naa Papa Thione di way naan addina ji nii